mbera mbera sama njaboot mbera Sénégambia mbera wóor li jot am ni yëpp mun moon génn wax dama nekkoon civil benn opération mu ndaw moo tax gis ngeen sama baat bi war ma génn wax mais en tant que missionnaire dara mënumaa tere génn wax te dara mënumaa téye gis ngeen ma posté yéen da ngeen ni politique ñun en tant que si en tant que sàmmkat en tant que missionnaire ñun politique ñu histoire la ñu xam te histoire la ñuy topp li naa histoire ñun en tant que Casamance surtout man kuy Binta Taasogu Jaabi Ejum Buuree nee naa sama maam Sidi Baaji ñoo njëkkee naan Casamance day demal boppam ndegam ñun ñii seeni set ñoo juddu màgg xam lu xew xam nu mu demee ñu décidé naan jàmm gi rekk ñu jóg doxal ko ak suñuy forti invité ñu kenn jaay suñu bàkkan soobu ci dox ci financièrement def ci suñu temps suñuy énergie ngir bëgg jàmm fépp suñu doom du ci ajuma la njëkkee lu yàgg la ñun politique ñu ñun en tant que sàmmkat histoire lañuy topp te bu ñu toppee histoire xool fu jàmm war a nekk ñu concentré ci yedd suñuy doom suñu njaboot ne lii la nii lañuy doxalee dem leen Sénégal Sénégal bi yaa benn nañu liggéey xale yi respecte ko topp ko di liggéey ngeen jóg indi Casamance phobie di stigmatisation rey lu doomu Casamance yi parce que lan la yéen a leen woon ne carrément fii yéen da ngeen foog ne yéen a ko moom yéen a jóg toog naan rébellion moo am Casamance ñu jóg dox ko yéen a toogaat créer seen rebelle camouflé ngeen créer ay MFDC xam kenn xam fu mu jógee lu ne ngeen def ko amul loo leen attaqué wul ci doomu Casamance amul loo deful ba leen ni reylu ba tay ñi naan si njaboot bi top leen luwaa ñu concentré parce que lu jeex ba paré la lu jeex ba paré ba mu jeex ba paré ba ñun mit confirmé jeex na paré suñu ansa taxo jeex na paré ñun en tant que ci sam kat yi kat yi ñi xamné jeex na ñen ñe bu ko fonto dama ni le MFDC suñu maam yi créé woon ko jité won mais bi pa ajuma jamu ajuma moy jamu Sénégal ya yépp ña ko jiite woon góor lañu mais bi yoon champion la première femme MFDC maay jiite Macky bi ajuma jàmm moom mooy jàmm Sénégal bi ajuma ñàkk jàmmoom moom there's no peace MFDC féminin mooy jóg te nee naa leen lu jigéen jiite man du ma dox ci no victoire dama juddu victorieuse lu ma songu rek des a victory to it ma xamal leen Sidi Badji ngeen doon dégg mais kii mooy setoon ñu naan ko kuy mbinta taasu bu jaabee jumbure tojate yàlla ngiti melam man maa dox jàmm 23 ans sama on 14 seen nonsense politique yooyu affaire bëgg to toog bëgg a is not going to employ again reelu ngeen ci doomu Casamance yi seen nonsense dañoo pare nee naa leen dañoo juddu pare négocier wuñu neexaluñu maa génnee drapeau bi teg ne ñaar de ko am des non lii dañ koy imposer nekkul pitié ah? non jàmm ajuma Casamance day taxaw indépendance te man kuy Binta Taasu Jaay maa koy jiite. dégg ngeen bu baax drapeau rek laa posté awma droit génn wax mais sama population lu ma jaral jaralu ko sa keneen ak keneen yéen may dégg trois jours d'opération laa jóge awma droit wax. baat atémit mi ma ñaan tey ma ne ko même baat ma mun a wax is serious ajuma ñun histoire la ñuy topp ñun duñu sànni carte nee naa leen carte spirituelle ñoo ko yor histoire la ñuy topp ñun jàmm gi rek jàmm bi na am Sénégal bi am jàmm bu amul there is no peace there is no peace di doon doflu amul foo leen jéemul nit ki topp loi legui nak ñaari citoyen ñi wara jaakarlo tribunal le ngeen indi ay gango diko sot sot kan moy sot bare naan da ngeen victoire man may ñaa yàq sa jabar ma ngi ñëw amaguma sen jot xex ajuma ajuma mi ngeen top nee naa leen ku ko da ngay son parce que bo len gisee ngeen jog sa yu amé bu na dem tribunal ngeen jog taxaw ngeen akabar ko melni ay zombie da ngeen ne lu mu ak lu mu yor yeen mun ngeen songu lolou di wañu dooleem pour bu demee jàkkaarloo tribunal day wi bu len sonna sen bok ñun aljuma suñu fiti lañ jël def ko ci aljuma aljuma ci bopam nek yorul bopam aljuma yorom yoramum ak bopam ñum ñoko yor Yun ñun la yor lo len wor ci mom do len ko gis da ngeen sonna sen bok li ko topp moo te loolu la donc jamm bo len ko bëggee Sénégal aljuma na am jamm sinon indépendance Casamance nee leen jigéen na koy jiite. sama maam Sidi Badji ko jiitoon léegi setoo ma ko ñëw jiite jàmm Sénégal bi ya mooy jàmm ajuma yéen a may dégg time up game over seriously moo am léegi dañoo àgg fi nga xamante ne bakkan bakkan right and right face to face réalité moo tege dañoo neexalul négocier wu no peace fa juma no peace for Sénégambia Mera sama njaboot gi Sen mama ñëw na xeex baa ngi door a commencé mbaa meññaa ak goon maa ngi lay wax yaa sa jabar ngeen pare ma ngi ñëw yéen da ngeen wara a jubilé parce que yéen a bind sen wëy li ñu naan nga bind sa sa entraque Ya koy njëkk test ci studio Yen a koy fecc su neexee ci yéen ngeen soog livré ña ko war a déglu naan neex am date. Yen a yéey njëkk fecc njëkk ree because I like that game ndaxte ña ko njëkkee woon jéggi ñu de yëkkatuñu tànk sa bay jéggi masamaa yow mi yeex sa jabar xeex bi du ajuma ñun la surtout man koy mbir tata sa bu jaabi nee naa dama judd victorieuse du ma strike ma miss non sama mbaal du ko sànni te du jàpp jën pare ñëw naa maa yena mera